man audité naa fichier bi deux fois may euh, wax ne en 2000 bi ñu defee carte israélienne euh, ministre de l' commandé ko en l'insu même des membres de l'ONEL j'étais membre de l'ONEL le général Lamine Cissé bi ñu ñëwee Ablaye Wade opposant candidat à l'élection présidentielle ne du wote du jëli kartam man mi maa tax mu woote parce que boobu dafa ne woon nañ audité waat fichier bi dindi doublon parfait yëpp doublon parfait ci fichier bi mooy da ngay jékki-jékki gis ci fichier bi ñoo bokk tur bokk sant bokk tur yaay bokk turu papa bokk date de naissance bokk fu ñu juddoo doublon parfait dina ci am lu mat 3000 wala 5000 wala yu mat 10 000 yoo xam ne tur yooyu ñoo ñoo bokk lépp. soo ko gisee dangay foog ne ay vote multiple la te loolu dafa am ci fiche bi fiche bi dafa doy waar man dama ko xam donc bi ñu audité fiche bi doublon parfait yu bëri ci Ablaye Wade dafa ne fiche bi dafay am ay vote multiple man maa jël sama responsabilité au nom de l'ONEL ñu radier lu mat dix mille électeurs yoo xam ne ay doublon parfait la woon li may wax nii Mamadou Diop Decroix mun na ko seede parce que biñ ko rajee liste bi moom lañ ko jox mu dem jox ko Ablaye Wade ci guddi gi la décidé ne xelam dal na dina retiré kartam dina wote ji te suba sa la retiré kartam point e wote ji gañ élection yi